waa Sénégal asalaamaaleykum yéen waa département Tivaouane maa ngi leen di nuyu man la Mamadou Ndoye Bane maire de la commune de Pire fa see commencé tey jii campagne bi bu mag assemblée général bu mag ca sama kër fa see ne jàppale coalition jàmm ak njariñ jàmm ak njariñ ñi nekk ci réseaux sociaux yi naan Ndoye Bane dafa rejoindre parti au pouvoir c'est pas vrai gor la si je gagne je gagne dans la dignité Si je, perds aussi, je perds dans la dignité.